juboo baax na waaye nañu doxal yoon ba noppi loolu mooy gis-gisu collectif non à l'amnistie loolu moo tax mu taxaw temb ngir xeex loi bi nga xam ne njiitu réew mi taxawal na ko. ñun d'accord nañ ci fu mu mënti toll ne bu ne nañu woote sénégalais ñu de dellu ci jàmm nañu woote sénégalais ñu réconcilier d'accord nañ waaye nag jàmm joo gis bu saxee dëgg dafay lal. commission loi bu assemblée nationale adopté na projet de loi bi ba noppi àllarba bi nag député yi fas yéene nañ ko voté waaye collectif bi jàpp ni loolu dafa am lu ko jiitu. ñenn ñi seen instruction démarré gul dañ leen juste arrêté mettre leen en détention en attendant président Macky ne leen justice da ngay bàyyi ñii parce que li daa lu ma bëgg te damay il faut que ma dawal xeetu jàmm xeetu apaisement pour que euh, dóor gaa ko pour mën a avancer te dëgg gi nag mooy situer les responsabilités d'abord. ku nekk la nga ca def na nga ko defee ak degré bi fu mu toll. nga ne maa ngi jéggalu askan wi di jéggalu ñëpp képp ku ma tooñoon muy sama moroomu doomu aadama. ñi nga xam ne ñoo seq collectif bi fas yéene nañu fekk ji képp koo xam ne da nga jóg ngir xeex loi bi ñoom ñu jàpp ni dara sababul bile loi lu dul ay intérêt politique. kenn Macky rek Macky Sall dong la ñu xeex ak moom ba tous les moyens mu fexe ba fësal ne lii Macky Sall di def loi d'amnistie bi d'accord ci. bu ko defee bu ñu xam ne nag ñun ku ñuy xeexal du Macky du keneen du du keneen Macky Sall la te li ci war dinañ ko def incha allah. moo tax tamit cette dénonciation là dinañ ko porter ba au plus haut sommet. fi muy bañ yëf yi yàgg fa dinañ fexe mu yàgg fa. collectif non à l'amnistie fas ne na wayal xeex bi ngir ñu dindi loi bi ci texte juridique yu Sénégal.